li yore lii nga xam ne moom la yore ci kaare gi réew mi tey jii nag mu ñëwoon ci yow di la siyaar bi jógee ci xalif général des mourides sëñ Mountakha tànkam yi tey nag mooy tànk yi daan am rek bu xew-xew bii ñëwee muy màggalu sëñ Tuubaa yi di seet si force yi nga xam ne engagé na leen mooy force de gendarmerie commencé ko ca Ndakaaru ci yoon wi ba yegg si fii ci biir Touba ak li ko wër loolu yi ba mu ca pare siyaar bi nga xam ne war naa siyaar borom dëkk bi mu jaar ci xalif général bi murid mu dalal ko lool ñaanal ko lool mu tàllal ko ay loxoom ak loxo yu gendarmerie yépp wax ko tamit lam ko daan wax rek ne ko gendarmerie moom nekkul fi kenn ku dul ku dul sa jëmm ji foofu leen ñëw fii ci yow ngay porte parole bi dib xaritam ndax gisa ngeen gisa yu yàgg yoo xam ne booba màggal ngi ñëwul mu ne sant bu baax ndax bu sëñ bi joxe ndigal ndigal loolu nee na ci ci say loxo yii la ne yaa koy doxal bu dee sécurité bu dee sante bu dee lu mu mën a doon ci màggal gi ak lu lu dul màggal gi yaa koy exécuté moo tax mu ne dana ñëw ci yow ba mu sàkko yow ci ñaan ba pare ñaanal la mission bi yàgg lool yàgg lool say loxo Mbàkke te nga gën ci am ndam ndax xam na ne am nga ci ndam bu baax a baax a baax ndax nee na moom observateur la te yàgg na tamit di xam li xew ci réew mi kon man lay ñaanal bu baax a baax a baax di la wax daal ne force gendarmerie yëpp takku na ko boo gisee ki mu àndal ci délégation bi. moom a part moom mi nga xam ne mooy haut commandant de la gendarmerie Jean Baptiste Tine mi ngi ànd ak le général Moussa Fall Moussa Fall nga xam ne lépp loo xam ne euh, brigade yi ci réew mi compagnie yeeg yëpp ak légion yi moom moo ko yore ci gendarmerie ànd ak aussi le médecin colonel Mame demb si nga xam ne fii ci escadron bi am na fi hôpital boo xam ne ci biir la nekk médecin chef fa fa nekk boo xam ne officier la ak it yoo xam ne ñi ñi ñi ci biir camp bi ak ñi nga xam ne wër nañ ko yépp ci biir Touba ku fa dem ñu faj la ñëwoon nga fa biñ koy inauguré euh, le colonel Pape Diouf nga xam ne luy opération rek rek moo ko yore le colonel Assane nga xam ne jumtukaay yi lépp rek ak finance yi yëpp yi ci gendarmerie moo ko moo ko yore le colonel Cheikh Sarr mi nga xam ne moo yore fii moo yore Njaaréem yore Thiès muy commandant légion bi te di talibé waaw le colonel Cheikh moo tamit lépp luy mobilité loo xam ne demul dikk beeg oto yeeg yépp moo koy moo ko yore le commandant Faye moo yore DIFCOM communication di mbokk ñii commandant compagnie bi Guèye tamit capitaine Guèye ma ngi fi capitaine Diallo bu chef d'escadron ak commandant brigade yépp yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak li ko wër ñu ngi ànd ak moom boo gisee nag mu demee nii bu ca nekk bu ñëwee fii tey xool maanaam avant mu ñëw def na réunion boo xam ne ku ca nekk ci ñii ñu lim yore nga pàcc boo xam ne moom nga yore ci màggal gi di ko doxal ak ci réew mi nga xam ne loolu lépp da koy xool ba nekk rendre ko compte ba xam foo toll ci circulation beeg ci lépp lu ñuy doxalee ci màggal gi mu doog a ñëw ci yow kontaan na lool nag bëgg na lool di la siyaaral bu baax a baax a baax di waxaat ni daal ñoo force de gendarmerie yëpp. ñu ngi sa disposition di santaat le président de la république bu baax a baax a baax ndax bi mu ñëwee visitam ba dem ba dem chaque année ñoom dañuy daal di ñëw topp ca gannaaw lépp loo xam ne président de la république joxe na ko ci ndigal ca loolu rek jaar ak bi président de la république sëñ rek donc maa ngi koy sant bu baax a baax di sant le ministre des forces armées bi nga xam ne moom tamit ci moom la dépendre loolu daal mooy tànki yi di la sant di la gërëm Mbacke. am niveau ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy borom liggéey bi di sant bu baax di leen gën a rafetlu seen taxawaay ci dëkk bi def na seen diggante yàgg na ñu ngi tàmbali ci biir gaaj bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh lañ ko fi defee woon ngi loo xam ne cosaan la ci dëkk yi liggéey rafet lool yàlla defal ba ci escadron bi ñu fi mujjee def te yàlla def di ko Cheikh Sidi Mokhtar nekkee mu jaare woon ci man ndigal bi dem ci président ba mu joxe woon ci ndigal bañ taxawal ba mu agsi bi mooy liggéey bu rafet ci dëkk bi kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen liggéey bi nga xam ne yéen koy def di fitli di fetli diggante yoonu murit ak yéen ndax kóllëre gu yàgg la lépp rafet na liggéey bi ngay liggéey ci dëkk bi tam ñi ci dëkk bi rafetlu nañ ko ndax xam na ne yéen ñi teg seen liggéey ci yoon di sàmmonte li ngeen war a sàmmonte te néewu na ko leen fi sikk te liggéey bi yéen a koy teg ci dëgg kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom gën leen a kàttanal leen di la dara sa cantu bopp yow général bi ndax yàlla def na bi ñu bi may amante yow kóllëre booba nekk woo ci fii nga toog ndax booba kilifa fi màggalu Tuubaa sax yàlla def na ci lañ xamante woon booba fekk ñu soxla woon ay camion ndox ci la cosaanoon waaye mu def ci taxawaay yitte wala suñ kóllëre moom tàmbulee ba nëgëri waaye gis nañ yitteem gis taxawaay ba ci bu yàggul rek toog naa ak président woo ko ci mbirum Touba loo xam ne lu soxal sécurité bi la kon mu mu doon digal lu bàyyi ko Cheikh mu Mountakha motul weer kon loolu kóllëre gu dëgër la suñ digg ak kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm leen ñaanal yàlla jëmbale leen euh, dëgëral seen mission ba ngeen àggale ko fu ngeen ko bëgg àggale te lépp di njëriñu Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa